quarante quatre ans yoo xam ne mosuma toog def deux mois yu ma toog yu ma ñëwul dëkk bi bu baree ba bare kon bu ñu toogee daanaka toog fukki weer ak ñaar yoo xamante ne gisuñu ma ma ñëw tamit ak statut de présidentiable candidat à l' élection présidentielle nii rek la mënoon demee parce que fii samay maam samay xarit samay waajur samay dëkkandoo di village bi ñëpp ay mbokk lañ donc euh, seen doom lañ teertoo teertu gi te nii rek la mënoon demee tey nag ñu ngi woote waaye woote gu lu ñu may mooy taxawaay bu sénégalais yi amoon y a quelques pour xeex pour que élection bi nga xamante ne dañ ko bëggoon toxal ñu jëmal ko laata mandat président bi fi bi fi nekkoon di jeex muy le 2 avril xeex boobu dañ ci rendre hommage delloo njukkal bu baax a baax la peuple sénégalais parce que li ñu am nii tey c'est résultat wu xeexam la kon bu dee koo xamante ne mooy le héros de la journée c'est le peuple sénégalais boo xamante ne dafa tenir à ce que ñu respecter sa souveraineté ce moment de solennité bu muy tànnee kan moo koy jiite def ko ci kóolute war ko def ci dal ci jàmm parce que ñi fi nekk di tànn ay sénégalais lañ ci ñi ñuy ay sénégalais lañ jarul xuloo jarul xeex jarul xiiroo jarul ŋaayoo li suñu ñaan ñu koy ñaan sénégalais yi di ko di ko ñaan yàlla d'abord di ko ñaan sénégalais yi di ko ñaan tamit candidat yi nga xamante ne xëy na ni ma def nii ñu ngi dara def noonu ñu woote ak jàmm parce que bu fi sénégalais xoosoo rek ab sénégalais ko xoos te beneen sénégalais xoos te loolu lu ñu war a moytu sénégal at yi ak weer yi surtout fitna bëri woon na fi tension bëri woon na fi féewuloo bi bëri na fi te président de la république bi ma bëgg a doon mooy bu ñëwaat doon président puso buñ ko mënee woowee noonu di rab ñu tappewaat xool yi boolewaat Sénégalais yi pour ñu mën a jubloo ci liggéey bi am naa yaakaar nag ci li ma jot a gis ci campagne électorale bi fépp fi ma jaar ñu ñu teertoo ma ba 6 heures du matin ak meeting yoo xam ne 6 heures du matin la xewee mbooloo bi bari lool ci tàngooru Linguère 45 degré nit ñi daw ci suñu gannaaw oto pour topp ci guddi nit ñi diñu xaar ba xaaju guddi pour saafoonteeg ñun pour déglu ñu pour fësal ni ñu ànd ci seen suñu projet loolu day dalal sama xel ne que élection bi premier tour dina jeex mam am yaakaar nag ñi nga xamante ne yàlla dina leen natoo ndam ñu am humilité boo xamante ne day xam ne ndam li sas la waaye du mérite personnel sas la yaakaar la bu ñu teg seen loxo waaye du mérite personnel yaakaar gu ñu warul trahir jamais bu ñu warul wor la waaye du mérite personnel ndax fu ñuy jaar pour egg si fii fu metti la ay bakkana ci ay nit ci dem kasu ay nit ci fas yéene jaar nar nar cee jaar laago ba abadan loolu moo nar a nekk en tout cas man président bi ma nar a nekk euh, sama sama sama busol su ma ko mënee waxee maanaam fi ma teg sama bët di fa jëmee di ko fàttaliku pour mu doon loo xamante ne dootul amati ci Sénégal abadan daay man parce que lu ko sooke fas yéene nañ koo song donc euh, di woote jàmm di woote waat jàmm di woote waat jàmm euh, te di am yaakaar ne Euh, bu ngoon jotee ni ko ni ko Sénégal defee en 2000 ki fi nekkoon félicité ki gagné ni ko Sénégal defee 2012 ki fi nekkoon félicité ki gagné noonu la war a demee tey parce que suñu génération warul def moins que ses devanciers dañoo war a tamit dégluwante topp scrutin bi ànd ci toute la bonne foi qu'il faut et l'acceptation du résultat bu ko defee jàmm ju ñu bëgg dina am Sénégal luñ ko xamee woy bi dina gën a rafet ñu mën a jublu ci liggéey bi bu ëllëgee ndax urgence yi bari nañ situation dëkk bi métti na te c'est des défis yoo xamante ne amuñu temps bu ñuy xaar pour bañ leen song a bras le corps pour mën ko dindi ndax sénégalais yi sonn nañ waaye incha allah rabbi tey la rongoñ di fer bu soobee yàlla. de la presse internationale. BBC. Ne demek? kon mu ngi noonu euh, mu ngi noonu Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu jëlee kaddu ba noppi mu ngi noonu dañuy dem ni dañuy dem ni parce que voté na ba noppi ngi waa dëkk bi waa mbokk mi accompagné de ses deux épouses. Ils sont à la porte, porte, ils sont porte bien. Ah. Nice. No, no, no, no, no, kon mu ngi noonu waa Ndiaga Niang mu ngi noonu génn doon teeru seen doom Bassirou Diomaye Diakhar Faye